asalaamaaleykum waa Sénégal man sama tur Modou Diagne la euh, immigré sénégalais damaa jóge woon ci Espagne ñëw fii jaar Maroc fi Casablanca bi ma fi jaaree euh, am na ay Sénégal yu ma xamoon ci marché bi man tout le temps dama doon yóbbu ay oto Sénégal di di jaay euh, léegi nag bi ma fi jaaree ci 2015 bi ma ñëw ci marché bi daje fa ak ay Sénégalais yi ma fa xamante woon foofu noonu. bu ma fa daan ñëw dama fay jaar ci ñoom jënd fa ay ma yu may doon yóbbu bi euh, la dernière fois bi ma fa jaaree nii ma ñëw euh, am benn Sénégalais bu ma àndaloon ci sama oto moom ñu arrêté ñëw police yi arrêté ko laaj ko ay kayitam yu yoru passeport sax mais dafa yoroon ay deux faux billets ay vingt euros léegi nag ñu ne ma ñu ne ma euh, ñoo àndoon après ko jàpp xam nga après ko jàpp Euh, ñu dem ci police bi mu ne leen man maa ko ko jox te man yàlla xam na ne joxuma ko ko man sama a liggéey moom mooy dem yóbbu oto Sénégal wala jaay wala liggéey kenn xamuma ci def lu bon wala wala ay affaire yooyu yu yu ñii ñi ma xam ñëpp ñi xam Sénégal ñëpp maa ngi leen ñaa ngeen jëmbale ma ba ci président de la République ak képp ku ko mën a wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf